suufumaa gardel ñoom ñaar asamaan ak suuf lay kenn ku ne ci ñun yàlla moo la garde waaw ku ne ci ñun dalaa affecté ay malaaka yu tuddee xaafasa xaafasa wa inna aleykum la xaafisin xaafasa yooyu bu toon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sadd la léeg-léeg nga salte mbaa nga dugg fu salte ñu toog dina xaar moo tax booy dugg duus bi da ngay wax allahumma inni a'uudu bika min al xubusi wal xabaa'is parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa kenn resatu la boo fekkee jinne ñu ngàdd la booy génn nga yëgal malaaka yi ne ñëw nga daane xufraanaka ñu naa ñëw nga ñu ne waaw ñu kaas waa soo ko fàttee man la ngàdd si biir wanag wi tee te te te te doy na waar moo tax bu la xaakir wa in aleykum la xaafisina bàyyi rek du baax waaw moo tax léeg-léeg ji jigéen de boppam nen xaafi xaafi si ne daal di dem toog fële waaye jinne solo ko nag ndeysaan ba demee kër say ba ñu ñëw fa bari waaw bu ñu buy nodd rek ndeysaan jinne jigéen ñi caddi caddi wa huwa yàlla al aliyu al aliyu mooy ku kawe ci al azim mooy ku màgg ci ku ko màggal mu màgg ku ko màggalul fekk mu màgg wallaay yàlla rek a màgg laa ikraha fi diin noonu la de ay ju gaa yab lool wallaay léegi nga am sa doom ne ko bàcc bàcc mu bëgg a julli mu ne papa laa ikraha fi diin nga am sa jabar bëgg ko sonal ñu ne eh bàyyi ñu waay laa ikraha fi diin ngay waaraate naan bàyyi nangam ñu ne benn ustaas ne eh yaa laa ikraha fi diin laa ikraha fi diin dafa am benn waay bu ñëwoon Madina bokkoon ci nasaraan yi ñaari doomam nag nasaraan lañu mu ñëw fekk yonent bi di waxtaan mu gëm daal ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah daal ne ko nag may ma mu ñëw am naa ñaar doom yu nekk ca marché bay jaay diwlin mu ñëw indi leen daal di indi ngadd kenn ki ngadd ki ci des ñu dugg leen ci diin yàlla na ko déet laa ikraaha fi diin loolu lay tekki moom la olof di wax képp nelawal mënta nekk fàq sa yar fekk sa doom mu tëdd nga ne ko faaj nelawal ah wala faaj reexal laa ikraaha fi diin loolu lay tekki mais tekkiwul bul duma sa doom ji pour julli loolu tekkiwu laa ikraha fi diin mënul su ta forcé nit ci pas-pas déedéet léegi daal xat tabayyana leer na ar-rushdu njub min al xay ci dew na njub leer dew leer ñu bàyyi nit ñi tànn njub na leer maanaam misaasu daawa bi misaasu lislaam na jàll ñu bàyyi benn message bu jot yàlla léegi nag ñu bàyyi nit ñi tànn xat tabayyana rushdu min al xay faman yakfur képp ku weddi bi taaxooti ci lépp lu dul yàlla taaxoot mooy lépp lu dul yàlla wa yumin billahi gëm yàlla da ngay weddi lépp lu dul yàlla door a gëm yàlla loolu mooy laa ilaha door na illallah wallahi laa ilaha door na illallah waaw waaye illallahu bu baaxut waaw baaxut laa ilaha illallah waaw boo ñëwee fenn di fa luye bala ngaa dugg ci biir néeg bi da ngay bale bala nga faa luye it waa ji daay génn waaye kenn dañu fekk fa ni luye nga luye fa ni moom ngeen bokk fa nekk moo tax pas-pas bii di al aqida du ñëw ci xol fekk fa naafiq ak caay caay toog fa ak ñoom naan na ngeen def ñuy ataayaandoo yow da génn leen bañ génn mu door fa luye laa ilaha door na illallah moo tax da ngay kufru bi taaxoot door am iman billah mu ne ku def ñaari faqad istamsaka mooy na téye na bil urwatil wusqa te buum gu dëgër ga buum googu lam fisaama laha du fereñtiku lam fisaama laha du fereñtiku du du du wereñtiku boo ko rawee du fereñtiku mokk tabarkàlla waxuma laa di dagg wallahu yàlla samiun ku dégg la alim ku xam la allahu yàlla waliyu lazina mooy kilifa ñi nga xam ne amanoo gëm ne ñi gëm yàlla yàllaay seen kilifa yuxrijuhum moo tax dana leen génne min azulumaati ci ay lëndëm ila nuur yóbbu leen ci gën a leer ginnaaw mooy seen kilifa dina leen génne ci crise yi ñu nekkee yóbbu leen ci développement crise yi ñu nekkee yóbbu leen ci développement wallaay bu ñu ko toppee mu naan def leen ñuy def mu naan bàyyi leen ñuy bàyyi balaa déwén rek lépp daal di faju wallazina kafaru ñu weddi yàlla nag moom awliyaahum ñoom ñu am benn kilifa awliya la ñu am kilifa yu bari la ñu am wallazina kafaru ñu weddi yàlla awliyaahum seeni kilifa ab taaxootu mooy la dul yàlla moom la ñu tuddee léegi laïcité bu ko defee loola nag yuxrijuhum moo leen di génne ñu ne nuuri ca développement ba ila zulumaat jëm leen ci crise sens contraire bi allahu akbar boo amee kilifa yu baari bokkut ak boo amee genn kilifa waaw damay dégg ci conférence sëriñ Cheikh yi muy wax ne ku am fukki conseil technique dee waaw mu ne dalul benn rek waaye fukk bien waaye dégg nga yàlla ni mu tëggee ay yi tabarkàlla ma tax benn waaye ca jamono Bagdad dafa fekkoon benn dëkk rek mu ne maay seen yàlla bu ñu war fas wu weex tàll wu rëy mbubb yu weex tàll mbaxana wu weex dal yu weex bu ñëwee waa dëkk bu lu ñu amoon dajale ko jox ko benn borom xam-xam ne ko waaye yow li ngay def bokkaale la mu ne lan mu ne leen lu tax nga naan ñun yaay seen kilifa mu ne waaw mu ne ah léegi li nga def bokkaale la parce que yaa ngi nekkal di jàmbur mu ne déet allahu yàlla waliyu lazina amanu mooy kilifa ñu gëm mu ne ko waaw mu ne ko ñi gëmul nag du ko ñu gëmul nag laay muy sax mu ne ko awliya mu taaxul mu ne ko jeex na ci taaxul yi laa bokk ulaayika ñi gëmul yàlla ashaabu naar ñooy waa sawara hum ñoom xaaliduuna way sax lañ fiiha ca sawara wa yan ca la musal alam tara xanaa gisoo ila allazina ila allazi ci kii nga xam ne xaaja ibrahima day weranteeg ibrahima fi rabbihi ci boromam muy namrose ibnu kanaan namrose ibnu kanaan waaw papam papam turandoo la ci doomi noox kanaan ibnu noox namrose daa toog an ataahu llahu yàlla jox ko almulka nguur rek mu ne waa dëkk ba nag man maay yàlla man maay yàlla bi ibrahima màggee ba yàlla yónni ko mu ñëw ci moom ne ko doo yàlla ibrahima bi mu ne ko doo yàlla werante am yàlla mën na ñu nekk is qaala kero ba nga xam ne wax na ko ibrahimu ibrahim doo yàlla mu ne ko ah ibrahima ne ko rabbi allazi sama borom mooy ki nga xam ne yuxyi mooy dundal wayu miitu te mooy rey sekara dee ak dund sama borom moo ko yor xaala namrus ne ko ana man de uxyi mën naa dekkal mën naa dundal wa umiitu te damay rey kon maa yàlla ibrahima ne ko defal dundalal reyal moo ñaari waayi daal di àtte kii rey àtte kii rey ñu daal di rey kenn ki ca sansam ndeysaan ki ñàkk sans ci am sans mu baal ko daal ne ku dundal kii ñu ne ko yow ku rey kii ñu ne ko yow mu ne kon nag ana uhyi wa umiitu ibrahima xam ne lii ay tappale dong la mu ne ko ah d'accord merci xaala ibrahima ne xaala ibrahimu ibrahima ne ko fa inna allaha yàlla yati mooy indi bi shamsi jant bi min al mashriqi muy jóge penku bu subaa ci sept heures vingt huit mu ne ko waaw mu ne ko fàtti biha andi ko yow bu subaa ci 7h28 minal maghrib mu jóge sow fa bu nit mu daal di wedam àll si waa ji nga xam ne kafara weddi na yàlla xamatul li muy wax mu ne yàjjee jaar na daan commencé ñàkk mbooloo mi ne tirim xam ne Ibrahima mi ngand la Ibrahima yàlla kontaan ci Ibrahima waaw parce que fekk na kilifa gu jubati mu wax ca kanamam baatu dëgg doonte dee na fi aljana lay dem neexul nag fa buhita allazi kafar waaja daa di ndeysaan jaxle wallahu te yàlla laa yahdi di jubal alqawma nit ña azzalimina tooñkat yii waaw rawatina namrus ibnu kanaan laanatullahi alayhi kon yàlla nee na ñu ngi ñëw ci wan la ne dekki am na waxoon na léegi ci Ibrahima yooyu yooyu yëpp muy wàllu dundal ak rey mu ne aw wala boog xanaa gisoo kenn si ku mel ni ki nga xam ne marra ala qaria dafa romb ci dëkk dafa romb ci dëkk noonu la de wala ñu dëkk ba xaawiyatun ma nga daanu ala urushiha ca ñag ya sàkkar ya daanu mur ya daanu rab mel ni kenn dëkkatu fa tabarkalla ah muy xool di xool moom mooy Uzayru ñu ngi ko gisoon fii baytul maqdis ba nga xam ne buxt nasar moo ñëw alag leen rey leen ñëpp ne sedew waaw mu war as mbaamam moom Uzayr ba agsi fa bi mu agsee xaala mu daan ne anna yuxyi naka lay dekkalaate haadihi dëkk bii allahu yàlla dëkk bii nan la ko yàlla lay dekkalaate baada mawtiha ginnaaw bi mu dee fa amaataha allahu yàlla rey ko moom mi ko wax miata amin téeméeri at fi mu taxaw nii mu daal di fay dee téeméeri at mbaam mi moroon dee téeméeri at waaw cere ji mu yoroon ci mbuus gi ak ndox mi mu yoroon ci mbuus gi tege ci wetam téeméeri at la ilaha illallah téeméeri at mbaam mi borom mbaam mi cere ji ak ndox mi bi téeméeri at yi jeexee summa baasuhu ginnaaw ga yàlla dekkal ko mu dekki waat aw yàppam dellu si yax yi dellu si kawar ga dellu si tawraat mi mokkaloon mu mokkalaat ko moo tax bi ko yahudi tari la waatee tawraat mu tari ko dañ ne ko yow doomu yàlla loolu tax ñu wax Usayru ibnullahi parce que ñoom lu ñu yéem rek ñu wéy ko yàlla waaw cettt yàlla daal di koy dekkal xaala yàlla daal di koy laaj ne ko tam la gis ta ñaata nga fi tëdd ñi nga fi tëdd léegi kañ la xaala mu ne la gis tëdd naa fi yow man benn bés aw baada yawmin wala xaaju bés waaw ci dix heures laa fi tëddoon naa ngi nii jóg tisbaar xaala yàlla na ko bal déedéet labista tëdd nga fi miata amin téeméeri at ren mu tiit fii nga tëdd mu ne am tëdd nga fi téeméeri at la ilaha illallah fanfur xoolal nag léegi ila taamika ci sa cere ji masal sa cere ji wa sharabika ak sa naan ji ila taamika wa sharabika lam yatasanna cere ji ëllut ndox mi sajjub ñoom ñaar ñoo bokk baat bi taamika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu la koy waxee mooy boo ci defoon ceeb tey li muy saf li muy sotti ko gos néew ndox ma am na fa téeméeri at te caf ko googu sax amu ci ci rajo am fa téeméeri at ëmmut ci rajo ñu ci mbuus suñ cere yi da ngay laajte rek mbaa moon cere yi ci mbuus la nekk téeméeri at ah Ousseynou Mos yëg ne ëmmul kay mu naan ci ndox mi yëg ne sanul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fajub xiif ndax ba ko waa sablu kër su defee ñoom ni ñu yónnee moom nag comme lépp ngi ci wetam mu daal di mos yàlla ne ko wala ni ngay dégtee nag yomb la yow ndax di nelaw xam ni ngay nelawee yombul nelaw xam ba nga ëpp nga nelaw yombul waaye xam sa nelaw morom moom yomb na moo tax mu ne ko wansur ilaa ximaarika xoolal sa mbaam mi moom dékkeegut mu xool mbaam mi gis tang yi tang yi yóbbu fële fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi def yàpp mu mag na bi tang yi lekk nañ ko bu yàgg mu ne ko nag xoolal sa mbaam mi seet tet wali najaalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay mandarga muy wane ne dekki am na linnaasi ngir nit ñëpp mu toog yàlla na ko wanzur xoolal ilal izaami ci yax yi mu xool yaxi mbaam mi ñu tasaaroo yàlla na xool baax kayfa nunfisuha wala nunziruha feneen xoolal ni ñu koy sosalee muy xool yax yi di def benn déma- démonstration ci kanamam karaj karaj karaj mu ne muy yéen ba mbaam mi di jog amagul nag yàpp seet wallahi ndeysaan moom muy xool undur ila wandur ila al'izami kayfa nunshizuha mu xool ba yax yëpp fu yax war nekk yax nekk su ma ginnaaw ga ba yax yàppee nag suuha laxma yàlla muure ko yàpp wallahi ndeysaan daal di ciy muur derba mbaam ma daal di foto foto napp ya daal di ŋaax falamma tabayyana lahu ba mu ko leere qaala nee na léegi day aalamu wóor na ma ne anna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la man waaw yéen gis boo ko jëf pourtant bu neexoon yàlla ñun ñëpp fii la ñu jaare waaye lii def ñoo war a doy moo tax mu jëmale ko fii wallaay ndeysaan kon ñaara nga ci dee ak dund wa fàttalikul bu ñetteel bi is qaala ibrahimu kero ba ibrahim waxee rabbi yow sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuxyil mawta nan ngay dekkale ñi dee xaala sama borom ne ko waaw laaj bi lu ko waral awalam tu'min xanaa da nga gëmut ne mën naa dekkal ku dee qaala ibrahima ne ko balaa ah kay gëm naa ne mën ngaa dekkal ku dee waaye sama xol bi da ci ñox ñoxi rek di ma ko laaj walakin waaye looloo tax dama bëgg nga wan ma ko li yatma inna qalbi ndax sama xol bi dal du du ko werante ci waaw ba werante mel ni mbir ba mu far leer la sa xel di la dal nag léegi waaw diwoo ko def defu ko diwoo ko def defu ko ba mu yàgg nga gis ko leer na léegi waaw qaala mu ne ko kon tey moon na ko fa qus jàppal arbaatan ñeent min at-tayri ci ñanaaw yi tànnal ci liy naaw ñeent ñu la neex mu tànn ñeent ne ko tànn naa leen mu ne rendil mu rendi suqi mu suqi acca fasurhunna bulet leen bulet boo leen ñëpp ci benn toq nga dëbb ko ba mokk nga dank ko ñeenti dank fasurhunna ilayka bulet leen yàpp yi xanaa mbokk yi jaxasoo bi ñu ko dëbbee dafa dëbb ba ñooy yàpp yëpp jaxasoo bopp yi nag maa ngi def fee ba mu noppee mu ne ko su ma jaal nga teg ala kulli jabalin ci daj wu nekk min hun na ci li nga bulet jus an ab xaaj te def benn dank fële benn dank fële bu la neex nga def ko téeméer dank ak yaa xam noo def ma daal di koy def dank fee dank yi dank yi dank yi dank yi tabaakala ba mu bari mu ne ko su ma aduhu na nga woo leen soo leen wooyee yaati naka daañu la dikkal saayan ci bu gaaw mu daal di ndeysaan dagg leen ñoom ñëpp def la mu ko defoon bu ret tari nga bopp yi nag baaxaañ aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële kuru kuru kuru donc jóge fële nangam nangam naaw mu ñëw assi mu jël bopp ba teg fële fa bopp naat jox ko mu lànk nee ñu mu xëcc bopp la jox ko mu lànk boobu mu xëcc rek mu lànk ba mu ne ca bopp bopp baaxoon teg mu ne këj daa taxaw dem taxaw fële yow la ilaha illallah moom ñoom moom ñoom bu ku nekk ni cëpp nga taxawoon yàlla ne ko naka mu naka mu moom tam gis nga ko moo tax yàlla mu ne ko waalam na nga xam ne anna allaha yàlla azizun ku tedd la warul su koy def nii xakim ku mën a tëral ay àtt la moo tax mu jaar wala ci kat lii du ay lépp mukk dëggantaan la dëggantaan la nii la yàllay dekkale ku dee sekkara ba du ko wane waaye ku ne xam na ne dund ak dee dee ak dekki ci loxoy suñu borom la nekk moo koy def boo fi jiyee gerte rek mu jàngal la dekki boo fi jiyee gerte mu jàngal la dekki boo fi lekkee mango ba mu jeex nga denc ko ba wow nga ji ko mu jàngal la dekki waaw te it bu meññee nan lay jëloon saf lay saf ni meloon lay mel bu dee greffal muy greffal bu dee mukkutu muy mukkutu bu dee jég bu gàtt muy jég bu gàtt rek ceetetetet mu dem de masalul lazina ñu ngi wàcc ci Ousmane bin Affan radiallahu anhu ca xasatu Tabuk junni junni gëleem ak seen sëf ca xasatu Tabuk la jël boole ko alfu dinaar jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alfu dinaar benn dinaar boo ko xaajee ñeenti yoon benn xaaj bi mooy quatre mille cinq cent quatre mille cinq cent fois quatre mooy benn benn dinaar junni nga ci jox yonent bi jamono yooyu allahu akbar yonent bi alayhi salaam di walbati xaalis ba li ma ko waxoon léegi naan ma barra Ousmane ma faala baad al yawm Abdurahman ibn Awf indi arbaata alaaf ñeent ñeenti junni dërëm waaw daal ne yonent bi man de juróom ñetti junni laa yoroon xaaj ko ci digg ba indi la ñeent ñeent ya ma fa desal nag sama njaboot laa ko fa bàyyil yonent bi ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta moo tax aay ji liñ bëgg wala boog hadis bi liñ bëgg ku la defal lu mel noonu nga ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aatayta loolu mooy yal na yàlla barkeel li nga yore barkeel li nga joxe ci wolof yàlla daal ne masalu la fii ne misaalum ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi fi sabilillah bu ko defee yàlla daa bëgg génne safar ga moo tax mu ne fi sabilillah yàlla daa bëgg génne xale yi ñëw di def circulaire pour bëgg a baal la nga leen di jox da koo bëgg a génne ne bokkut la ngay maye ca taaxuraan ma bokkut kala way aw way nga may ko bokkut kala tag nga may ko bokkut dama ne fi sabilillah yàlla lu leer la wax boo fi doon ngénte may si fukk junni ak juróomi du tus waa ji may wut moo la gën fa yàlla yonent bi nee na bu ngeen di xewlee te ku ñëw di leen tagg bu ngeen manee na ngeen tibb suuf xëpp ko wala ngeen sànni ko ca gémmiñ ko kon boo ko mayee ka maye wut la gën waaye ka ko xëpp suuf nag moo la gën a ti nag doonte yombul kon yunfiquuna amwaalahum ah fi sabilillah kamasali xabbatin day mel ni wenn fepp fepp wa ambatat saxal na sabaa sanaabila juróom ñaari gub fii kulli sunbulatin gub bu nekk def miati xabbatin téeméeri pepp kon wenn fepp juróom ñaari téeméeri fepp allahu akbar wallahu te kat yàlla du yem foofu ndax yudaa'ifu mooy fulandeel li may saaru ku ko neex ba fa ko neex wallahu yàlla waasiun ku yaatu la aliyum ku xam la yéen de alladina yi nga xam ne yunfiquuna dañu joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci yoon yàlla suma ginnaaw ga laa yutbicuuna duñu tofal maa anfaqu ca lañ joxe man nan tiitaru wala azan wala yaxaste lahum am nañ ajurum seenu pay inda rabbihim fa seen borom waaw joxe ba noppi xas tiitaru woo ndax doomu aadama day joxe yenn saa yi tiitaru am mooy al man joxe ba noppi naan waa ji doon ak man joxe ba yàqu wala soxna ba noppi ne am yàlla jox la lakkalay ngeen waaw am yàlla jox la lakkalay ngeen sarax ba yàqu te loolu xew léegi ci jigéen ñi waaw ak ci ndeysaan dongo yooyu di yalwaan ci jàngukaayu alxuraan yi fab ñaar dërëm ne ko ne ko nii sa bopp sama ayu jëkkër sama ayu bopp sama ayu baay sama ayu nijaay am yàlla jox la yàlla ne ah boobu dërëm koy joxewuma ko boobu dërëm koy moom joxewuma ko wala gànn waay ñëw sa kër ne la sëñ bi ma gis la dugal yow ci biir mun mu ni ba nag nga génn soxla si nangam nga wax ko zéro waaw waa ji daa ñëw dugal yow ci néeg ne la kër ga day dépense am ci nga ne ko ah waaw de maa ngi foo nag ñeenti téeméer daal di koy jox génn soxla si ne yaay kii lu muy wut moom bu gisee mu ñëw fii ma ne ko non xam nga gars yi da ngay waaru quoi léegi nag yaa ngi ci zéro te ñàkk nga ñeenti téeméer waaw te jigéen ñi loolu li mu njëkkante information yooyu moom rek leen bëgg waaw parce que bu ñu sañoon tiitaru ci seen kanam jëkkër yi morom yi ne sama jëkkër yi defal sa jëkkër ma tax ba jëflaataa zone yàqule lu mu doon wut daf maa soxla woon waaw yàlla moom li nga def rek xam na ko moom tabaraka wa taala